Abdoul Mbow mi nga xamante ni moo jiite groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar moom moomee nag nee na di wax ne daal tey jii nag gàcce la ñu am mbetteel tamit la ñu am ci journal bi nga xamante ni moom la ñuy wax yoor yoor ak li nga xamante ni moom la ñu xëyee ñun ñii di député yi benn bokk yaakaar yi. moom moomee nag di wax nag maanaam journal bi dem na sax ba ñuy saaga te saaga yooyu nga xamante ni saaga nañu ko sax maanaam ruus naa da ca jaaraat journal mi ba yóbbu fi nga xamante ni moo di si yoon maanaam si tribunal tribunal daal di leen di àtte maanaam ñu daal ni moo di journal bii di yor yor loolee nag mën nañ ñu nemmeeku fan yi si ñi nga ni ñoo fi nekkoon jegeñaal ak ki nga ni moo di président Macky Sall ñuy faral di yóbbu jamono ji ay journal si li nga xamante ni moo di yoon kasa mu ki nga xamante ni moo di Cheikh Issa Sall woon ñi nga xamante ni ñoo di sans limite ñi ngi démb mën nañu sax ñu daanoon leen daan yoo xamante ni yu métti métti la alamaan leen tamit xaalis boo xamante ni bu takkoo takku la loolee nag mën nañ ne nekk loo ni kon lu doy waar la si réew mii di Sénégal